sant gërëm aussi waa GIE Gaïndé 2000 ñi nga xam ni dañuy assister l' administration des douanes euh, ci facilitation des opérations du commerce international euh, comme ni ngeen ko xamee euh, dañoo defoon benn jumtukaay bu am solo bu ñu tuddee Orbus nag boo ko waxee mooy plateforme la boo xam ni day réunir toutes les parties prenantes yi nga xam ni ñooy intervenir dans l' importation transitaire yi Euh, banque yi assurance yi douane ak vraiment service yi nga xam ni yëpp am nañu document yi ñu war a délivrer dans le cadre du du dédouanement donc depuis vingt ans nag ñi ngi doon liggéey di liggéey ci plateforme boobu tey ji plateforme bi tax na euh, boo naroon a dem déplacé wu dem ci service yooyu yëpp plateforme bi la koy teggil da ngay dugg rek ci benn clic nga demander document bi ñu xool boo réunir les conditions ñu jox la ko document boobu aussi nga jël ko dugal ko dans le système gaynde te loolu lépp c'est de manière électronique donc dina gaawal euh, jëflante yi surtout avec douane dina yombal aussi formalité yi dina wàññi aussi déplacement physique yi te loolu aussi day yokk transparence activité yi nga xam ne ci lañ nekk bilan euh, bu am solo la comme ni ma leen ko waxee déjà day yombal Euh, plateforme bi day yombal euh, liggéey bi nga xam ni moom la professionnel euh, de l'importation doon def day gën a day gën a gaawal tamit procédure yi parce que fa nga daan def ñetti fan wala ñeenti fan tey jii ci trente minutes mën nga def say formalité leneen li nga xam ne aussi moo ci am solo ñi ngi am jéego bu am solo boo xam ni aussi bëgg nañ ko def parce que jusqu'à présent Euh, ci euh, procédure douanière la ñu yemoon mais dañ ci bëgg a yokk enlèvement te am na benn plateforme bu am solo boo xam ni waa port ak waa GIE ñoo ko def muy Orbus Infinity commencé nañ ko sax appliquer avec l'aide de la douane et je crois que loolu bu ñu ko defee day tax ëllëg ñu def suñu formalité yi comme ay formalité yoo xam ne yi ci yi gën a kawe en tout cas dinañ ko méngale ak yi nga xam ne ñoo gën a kawe ci yeneen réew yi ñu e waaw li may wax rek mooy ñun dañu xaw a am njàqare ndax comme ni ngeen ko xame malgré liggéey bu am solo bi nga xam ne douane lëkkaloog yeneen force de défense yi et de sécurité ñi ngi koy def dañ gis ni loolu taxul euh, defkatu ñaawteef yi dellu ginnaaw au contraire tey foo foo leen jàpp ndax ñu ngi leen jàppoon gulumbu ñu dem Kidira biñ leen jàppee foofu ñu dem côté euh, côté Saloum ñu jàppal leen foofu démb ñu ngi leen dégg ay côté ñu ngi leen jàppaat ay Kër Ayib demaat Fatick loolu day wane ni ñoom fu ñu leen kare rek am na foo xam ni mën nañ faa jaar léegi loolu nag li muy wund mooy lan mooy tey jii buñ deful ndànk suñu frontières yi defkatu ñaawteef yi mën nañ faa jaar indi fa lu bon loo xam ni mën na nekk drogue mën na nekk euh, médicament bu baaxul mën na nekk aussi ay faux billets te comme ni ngeen ko xamee euh, euh, délits yooyu tous ces trafics qui ont des effets pernicieux non seulement sur le bien-être de la population mais qui peuvent affecter le bon fonctionnement de l'économie nationale c'est pourquoi donc nous restons déterminés nous restons engagés et avec le soutien des autorités notamment politiques avec le soutien aussi de la tutelle du ministère des Finances et du Budget avec la détermination aussi qu'on voit sur le terrain de nos éléments, on parviendra en tout cas à contrecarrer euh, ces trafics et à sécuriser davantage nos frontières. Euh,